may dem ak volonté boobu mun naa ne bi may jàng di di pour am sama diplôme bi maa ngi nekk en état nekk si négocier ak situation yi muy àndal yëpp ma ànd ak courage bi ma sëñ ay dara mbàkke ak ay cadre bëgg naa ëllëg ngeen bokk si ay si cadre yi di wane ni rek sëñ ay dem na ci ñun jom courage ak volonté di sant yàlla bu baax nag di ko ci ñaanal te du ma bàyyi sama borom kër ndax bayi mo e beni on setanuma jappale mo basta ma jango setanuma beni on e munana tam dama sant bu baax tam ndax ma bima bima ma kiwe bima yam diplôme bi ma ngi ëmb bima wusile borom daarul la tudé sama tout tang ma ay sant bu baax nak seigne ya lepp seigne ay dara mbaka la jere jef seigne ay dara mbaka yalla fi yag te wer ya. jere wat lepp seigne na mu karam lompor mbake waaw ma bawoon ak kees moom ma wax na ko waaye di delloo waat tamit maanaam mbokk taalibe yi ma àndal yëpp muy soxnay waa Cees yi te tamit liñ ma defar rey na trop waaw maanaam amuñu lenn daal loo xamante ne maanaam dinañ ko regretté wala ñu tiit ci wala ñu ragal maanaam ñun sëñ bi lañ jox suñ lépp waaw mu doon suñ nday doon suñ baay ndax gisatuñ suñ nday gisatuñ suñu baay asalaamaaleykum wa rahmatullah ñi ngi nuyu mbooloo mi yëpp di ci jiital kilifa jotaay bi di Seydina Aliou Haydara Mbacke di ci toftal suñu bunt ci moom di Cheikh Abdoulahi Ndiaye xanaa di sant rek waaw ngir ñun amuñu lu dul daara ji suñu lépp daara ji waaw di santaat sëriñ bu baax a baax di sant Cheikh Abdoulahi Ndiaye nga xam ne saa su ne mu ñuy tàggat di ñu xiit ci yoon bu baax bëgg ñu doon ay nit ñu mat waaw ay nit yoo xamante ne dañuy jàmbaare ci nekk ay modèle ñu seetlu ñu yiw waaye tamit ñuy participer ci seen développement réew maa ngi bu baax di kàddu ñun ñu ngi bokk secteur Xudaamu Rahman Géejawaay waa kër Cheikh Abdoulaye Ndiaye lañ bokk ah lu ñu yëg na nekkul leen lu dul mbégte rek di santaat sëriñ bu baax a baax ndax ci daara ji lañu amee BFEM ci lañu amee bac ci lañu amee licence ba tey ñuy si ci master te bu ñuy doog a tàmbali am amoon nañu ay jafe-jafe yu bari parce que ñu bari daan nañu wax ni boo bokkee ci daara ji doo jàng dañ naan daara ji da lay teree jàng topp dof yi topp bay faay yi nga xam ne xamuñu jàng te tey ji ñu ngi ñuy jox suñu diplôme tey ji master kon yaa xam nañ ne daara ji terewuñu jàng au contraire sëriñ bi dañuy ñaaxaat pour ñuy gën a góorgóorluwaat ci jàng bi kon lépp lu ñu am rek moom lañ koy sant ñu ngi jéggaluwaat bu baax. Cheikh Aïdara Mbacke gën a neex si sama si bis yi ba ma juddoo ba léegi mën naa ne bés bu dàq bés bii tey ma am barki borom daaru Muxti barki oh, maa ngi jógee secteur Géejawaay Xidmatul Xaadim bu Géejawaay li yëg mooy sant Seydina Mukarram Cheikh Aïdara Mbacke rek ngir ndogoy sax danoo forcé ngir def diplôme ngir loolu dañuy bëgg tout tànk yi royee ko ci ñun nga xamante ne seeni mag lañ ci daara ji sëriñ bi yar ñu ci jaamu yàlla yar ñu it ci jàng ngir amaana ba nuy dugg ci daara ji benn diplôme amuñu ko kon bu nu fi demee ba ne am nañ fi BFEM am fi bac jàll fi ay yi bay jàngale ba fay def ay 700 koo xam ne du Dakar ngir ñun Dakar lañ juddoo ñu yóbbuñu ba Niodior joor les villes du Saloum ci ay barab yi gën a reculé waaye ñu koy dund sëriñ di fa yaatal liggéey bi kon Seydina mu karamu lam ñu def ca ndoorteel ga moo waral tey ñu mën a dem tasaare liggéey bi foofu kon ñun lu ñu sori sori duñu fàtte liggéey bi fu ñu mënti nekk dañuy fexe ku ñu jaxasoo it ñu bëgg sëriñ bi di ko liggéeyal ngir ba nuy dem ñoo joor amaana xamuñu woon sax kuy sëriñ bi waaye safar dañu fa fekk ñu taxaw ko ca école ba ba ren di sixième année bi buñ ko mujjee taxaw dafa kawe suñu njort saa fuñ tourné dañ naan ñu madame kañ la màggal bi kañ la safar bi kon loolu Sëñ dara moo ñu ko defal moom lañ koy sante moo ñu yar ci jaamu yàlla yar ñu ci sellal suñu xol dafa fees ba xamuñu lu ñuy wax kon suñu yéene mooy képp koo xamante ne tout temps nga muy bu góor wala bu jigéen fépp fu diplôme nasaraan ak bépp métier bu mu doon nga am ko pekk indi ko ci daara bi ñu koy liggéeyalee sëriñ bi loolu rek la sàkk kon képp kuy waajur di tout temps nga veillé ci sa éducation doom jàngal leen encadré leen ba bi réew mi nekk ñu bëgg koo yor liggéeyal ci Serigne dara Mbacke waaw li mu def ci ñun dañ koo war a def ci njaboot bi ndax dëkk bi xam nañ ne toj na mu baay mu kara mu sagal nga noo yaa def ci sunu xol

metti woon na lool ci côté bépp nag waaye bañ gëstoo moom lañ gis di sant tamit Cheikh Abdoulaye bu baax ndax taxawu nañ ci suñ jàng bu baax conseil bu ne mu ñu koy jox sëñ bi boo waxee mu ne diplôme bu nit di am rek fexe leen koo am kon Mbàkke ñun amuñu sa fay dañuy jël lépp di ko teg ci sa loxo di la ko santee di xam ne diplôme bi daal bu buñ ko amee yaa ñu dooleel yaa ñu may fit amaana diplôme bi bañ ñu koy jox BFEM amuñu woon liberté ñëw taxaw di ko jëlal suñu bopp soxna Yacine Diop moo ñu ko jëlal ngir boobu suñuy waajur comprendre ñu woon liggéey bi lan moo ko waral ndax dañ doon wax boo bokkee ci daara ji jom jom bi ngay am pour suivre say études ni mu waree doo am da ngay topp Baay Faal da ngay taxawaalu wala banditisme ngay dund fekk na yow dépassé nga côté boobu buñ demee nag tey bañ ñuy jox suñu diplôme master 2 ñu koy jëlal suñu bopp dañ koy sante yàlla dina ko sante yow sañay dara Mbàkke di la ñaanal nak Mbàkke nga yag fi lool te wér ndax sa yag rek moy suñu njariñ bi ngir soxna yi ci daara yépp and eh, nek ben nek wa acha Ashabul tahfi mu nek secteur yi ci khidmatul xadim yépp bok ci kon ñu ngi sant sayidina mu karamu bu baax baax baax ngir oyofal gogu mi ñu oyofal ndax ya seexal ak seet na di sante Cheikh dam sek mi nga xamanteni ni mom lañ ko parrainé ñu ngi koy sant bu baax ndax seen daam maanaam kenn du ko tuddee leen ba kenn si am xel ñaar si ñoom ñëpp nag waaye rawatina ñu mu jiitoo maanaam niñ naan lay ji am na waaye bàyyi ji seex tam am na njaaxaanaay la tëdd ak borom daaru mat sëñ daam ñu ngi lay sant di du sens mérite la ñu ngi lay sant si barke Baye Dame Faati nañ lay ñaanal ni ñu la dippee yàlla yàlla dëgëral say fan ci barke borom daaru moxti yàlla dëggal sa diggante ak Seydina am karamu ak bépp taalibe boo am di wax ne lii nga def rëy na loolu ñu ñoo ko waroon a def ñoo la waroon a defal lii waaye yow yaa ëlbatikuwaat ah, ñu demee ba tuddee la am mbégte bi kon ñëpp a waroon a ànd jagleel la dara waaye yow yaa ëlbati xam ne ñi ay soxna lañ maanaam ay tuut tànk lañ waaye xooloo loolu ku ci dem ku mel ne man ngay xool naan mooy maire bi ci daara kon <laughs> xam naa maire bi moom doy na waar kon ñu ngi sant Seydina mu karam bu baax a baax te xam ne goneem yëpp ay yàpp mag lañ leen sol waaw ñu ngi tuub bu baax di jégalu bu wér Cheikh Dame di la ñaanal fan bu gudd ak Cheikh yi nga àndal ñëpp ah ni ñu jàppee si liggéey bi yàlla na sëriñ bi teewee noonu seen i biir ci barke borom daaru mox di tuub bu baax ci kàddu gi mu yàgg fi loolu te wér daanaka du wax ndax ñun bis bi ñoo ko moom dañ wutal ne dañ dara jàlle lañ ñu koy def waaye. daraja ji ñoom ñi ñu ko jox ñoo ko moom dale ko ci jëwrin Moodu Jonn góor a Ñang ak waa daara ji yëpp yëg leen na daraja jooju nga xam ne ñoom soxnay Sayyidatul Firdawsi waa Asxaabul Kahfi yëkkati nañ daraja ji jox ñu ko ñun daraja jooju dañ koo jëlaat lépp delloo leen ko ci barki Sëñ dara Mbàkke maa ngi bokki tali bi yëpp di siyaar sama bokki seex yi di leen ñaanal ci dooley Seydina mu karamu ñu ñu gën a am kàttan Cheikh Abdoulahi Ndiaye Cheikh Adama Cheikh Omar Mbaye Cheikh Massamba Cheikh Mamour Faye moom it ñu ñaanal ko bu baax ndax fan yi ak ndog dakoo dal te ñoom dañoo bokk ci soldaar yi sëriñ bi te dara waru a jot dañ ko ñaanal yàlla sama borom may ko tawféex ci barke borom Daaru Muxti ñu ngi koy ñaanal bu baax ci barke Sëñ ay dara Mbàkke Cheikh Abo Rijal Cheikh Rijal Lo bàyyiwunu kenn suñu mbokki seex yi sant nañ ñëpp Cheikh Omar Cissé Cheikh Yërmande Mbaye Cheikh Fallou jóg ñoom ñëpp kenn ku nekk sa taxawaay gis nañ ko ñu ngi lay ñaanal yàlla sama borom gën laa dolli kàttan Mbàkke ñun amuñu lu ñuy wax ndax bu mu taxawee ci sa kanam di wax wax gi du am njariñ ñun dañoo bëgg taxaw ci sa kanam di jëf taxaw ci sa kanam di wax amaluñu benn njariñ li ëpp njariñ ci suñuy jëmm rek muy jëf waaye nag nga yëg ne maa ngi lay seedeel ci barket borom Daaru Muxti barkeb Serigne Dame Ahmadou Faty sa wayjur soxnay asxaabul kahfi yi waa fédération xidmatul xadim man de sant naa leen cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ndax tuddee nit damay wax ne lu xarum tudd tax ngeen def ko am ngeen ko ndax leer la leen ne man lu topp bu ma fi def rek li ngeen fi defa ko doublé te gën yëgu ko kon Mbàkke maa ngi lay ñaan nga ñaanal leen yàlla sama borom gën leen a dolli kàttan bis yi yàlla na gën a taw bis bu ñëw ni Serigne Touba tayam ni muy lee démbam bis bu ñëw na gën a taw sant nañ leen bu baax sant mboolem ñi nga xam ne maa ànd ak ñoom bàyyi ko kër Mbay Fall buñ ci tuddee suñu baay ma kura moom sunu baay la sunu lépp la sëñ Souleymane Faye ñu ko waxee léegi suñu xarit la suñu lépp la suñu yaay Fatou Gueye ñi doroon a ñëw bari na lool waaye yàlla dafa dogal tamit am natt bu nu fa dal muy am mbokkum taalibe mu wàññeeku ca koñ ba looloo tax ñu bëri ñi naroon a ñëw sax mu ñëw waaye konte magi dëkk ba yépp dana ñëw teew fii ndax gis nañ na Mbàkke ñun li nga def ci ñun li nga nu nàmpatal ñun moom rek la ñuy sotti fa nu de ñun xamuñu dara mënulu dara duñu dara waaye lépp loo xamante ni bii luy jag la fële rek ci sa jëmm ci lay bàyyi ko kon Mbàkke ñi ngi lay sant bu baax di sant waa Kër Mbaye Fall nag mboolem fu fi waay bàyyi ko rek yëgal nañu ngi lay sant waaye soxna yi yéen moom mention très honorable barki borom daaru très honorable billaahi barki borom daaru sama xol set na guy ndax leer na ma ne man jëfaluma sëriñ bi lu tax ngeen di ma delloo ñu ko wallaahi maa gën a xeebu ci kër sëriñ bi ab satal bu satalaa ci may jëm ji nga xamante dina man lu señ ay lu way di defal señ ay dara man nga ko war man man mako ko war a def maa war doon seen i jaam ndax man sama sang moy seenu sang kon no bokk ab sang ba pare ngeen wëlbatiku di samay sang man lu way di defal señ ay dara rek day melni man mi nga ko defal barki borom daaru motax yalla na leen borom bi gëna doli kattan suñu xol sét na guy ñi ñew ak ñi ñëw ñepp ñu ngi leen di masé di leen gëreum di leen ñaanal yalla na leen sama borom tek loxo ba fu ngeen bëgg a yegg ci kàttanu sëriñ bi ngeen yegg fa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mu jaayal suñu yàqu jox la sax dama la mu laa fay. kon barke lii soxna yi ñoom bu